assalamu assalamu assalamu alaikum mbokk ab Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité mi lëkkaloo si partenariat ak le kër FM de la première radio panafricaine de émettre depuis Los Angeles ñu ngi leen di nuyu. mbokki auditeur yi mbokki auditrices di len ñaanal jamm, di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal aduna bi yépp. di len wax nak ne nu baaxoo di ko defee ayu bés yu jot waxtu wi dellu si nañu rek fas yéene ànd ak yéen si seen émission diaspora xew-xewu jaspora seen xarit Chérif El fas yéene ànd ak ay invité am tey nag nu fas yéene jàkkaarloog euh, El Hadji Malick Sarr mu nar a fekkoog euh, soxna Dégène Diop kon nag euh, ni ma baaxoo di ko defee rek damay nuyu samay gan dalal leen. daal di leen jox nag euh, ñoom it nu nuyoo ak auditeurs yeeg auditrices rek nu daal di wéy xuus si émission bi El Hadj euh, maa ngi lay nuyu dina la dalal jàmm El lan ngay nuyoo auditeurs ak auditrices yi ñu àndal si waxtu wi. samil alim min ashaytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin wasalim ginnaaw bu nu musloo ci seytaane mi yàlla rëbb julli ci nant bi salaa sallam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jël ñoo bi teg ko ci séré mu jàllale ko ci auditeur ak auditrice Sud FM yi en collaboration ak Cap Sénégal na tàngi jaar ñëpp bala ak ñëpp yàlla yàlla boole ci barke yonent bi salaa salaam di wax inaa lillahi wa inaa ilayhi rajoon mbokk moomu wuju boromam yal na yàlla yéeg ko jox barzaq mag ñi wuti ko ci njabootam ñu ñu fi desandi yàlla nangul ni ngiy jàmmutu jégam ñi suñu rëcc ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam salué aussi tamit émission ëttub néegu sëy di recommandé góor ñi jigéen nekk ci panel bi yëpp ñu koy déglu wax dëgg allah émission bu bëri njëriñ la bu bari njëriñ la te ñi koy waxtaanee tamit wax dëgg yàlla am xel mu rafet mu màcc ku rafetal suñu nekkin te baasu àdduna yëpp mooy mooy néegu sëy bi te sëy buñ koy wax jigéen ñi la àdduna buñ koy wax jigéen ñi la ñuy magasin yàlla te ñoom suñu xamee seen cër rek lépp tegu yoon macha allah fettoon nañ ko trop. rafet na El Hadj euh, nu dellu rek di la sant di la gërëm soxna Degene Diop euh, soxna Degene nuyu naa la di la dalal jàmm soxna Degene ana lan ngay nuyoo auditeurs yeeg auditrices yi ñu àndal si waxtu wi kàddu gàngoog. asalaamaaleykum Cap Sénégal naataange sunu ko rajo maa ngi di nuyu leen ziar di kontaan ci waxtaan bi Chérif nuyu naa la.

mbokk yi nag euh, defe naa ni ay bés yenn weesu am na luñ fi doon waxtaanee mooy lu am solo di sa yi nga xam ni day yëngatu bu baax a baax a baax a baax sëyu moodu moodu yi yii di tas yii justice mu ci am yoon defe naa ni foofu la ñu toll woon teg fa baaram tey nag kon bu nu ñëwee dañuy teggi baaraam rek dooree foofu El Hadji Malick nu am lu nu seetlu muy sëy yi nga xam ni wax dëgg yàlla day tas te li koy indi mooy moodu moodu bi day nekk bitim réew jël soxnaam def ay effort góor góorlu ba jël njabootam yóbbu waaye bu demee daal nu gis ni sëy ba daal day yëngatu yenn saay justice am si mu defaru yenn saay justice am si sëy ba tas yenn saa yi même mu dem ba nga xam ni ki mu dal ah, yaakaaram day yàcceeku ba nga xam ne day dem sax nag ba mel ni am xelam dafa xaw a yëngatu muy lu doy waar El Hadj yu mel noonu lan moo koy faral di indi lu tax daal mu bari si lool loolu nag la bëggoon nga jàngatal nu ko wax nu si sa gis-gis dina am solo lool kàddu gaangoog waaw mu dellusiwaat Chérif doole sant yàlla bu baax julli ci yonent bi salaahu salaam Chérif El Walid moom mooy xeetu yonent bi moo tax moom nu mu def rek dañuy daal di d'accord ñaanal ñu yàlla rek suñu plateau bi ñu seq ak nga xamante ni mooy tan déggen parce que suma tante la na sama rakk yaay bu tudd déggen ba pare sama yaay Jóob la sant macha allah ñu ngi leen nuyu di ak mbokk yi nga nekkal foofu yëpp di nuyuwaale au passage ak encouragement à notre sœur Awa macha allah. té wa diaspora bi nak ngeen bàyyi xel par rapport ak ces produits waaw dina am solo bu baax a baax man nag vraiment moo jàppoon ci weekend bi mais je tenais vraiment à venir visiter seen stand bi euh, fële ci ci foire ba mais ce n'est que partie remise incha allah yàlla yàlla baaxal yëpp te ñu lay encouragé bu baax a baax incha allah chérif regroupement familial maanaam góor ñi yóbbu seen soxna ci seen wet parfois dañuy trouver ne yàgg bi ñuy yàgg indi leen indi ko mooy solution bi te xam nga parfois dañuy fàtte ku nekk da nga am sa aada te waxu président Senghor boobu bëri duñ si bàyyi xel ouverture c'est vrai ñàkk regarde le monde c'est village planétaire tu tu tu au Sénégal da ngay gis li li xew euh, aux États-Unis en direct li xew en Europe les négociations en Europe da ngay nga koy gis en direct li xew suñu mbokku palestiniens yi tu le vois en direct kon enracinement bi da ci am solo. Té té en général ñi yobu seen soxna yépp man si sama jàngatu bopp après loolu day poser problème muy coutume yi suñu ay mërs da ci jouer té loolu day indi problème parce que na ngay jàppee seyu Sénégal bi mu bëgg ko indi à l'étranger certes su ñëwee au début loolu lay nekk mais le problème mooy ku ñëw ci dëkk foog nga intégré te intégration jigéenu Sénégal à l'étranger par rapport ak seen wàllu sëy bi tax nga xamante ni ni ginnaaw yàlla ci loolu la jaare seen ñëw duñ duñ ko bàyyi xel te en général si foofu lay coincé ñu si ëpp bu ñuy dem illettré la ñu doon du ci du ci du ci école su ko defee xam nga fële intégration ça veut que reconnaître les règlements et de ce pays ci par rapport à sa dafa am nu mu tëddee si si privilège bu nga xamante ne nii du ma ko tuddee privilège sax parce que ñun si diine islam la ñu sukkandiku te lépp loo xamante ne nii lu baax la rek si jigéen l'islam jox na ko aada daal lay wax par rapport ak yi nga xamante intégration ba loolu lay laaj te du fekk enracinement bu nga xamante ni nii jigéen ñi war nag enraciné wu te connessance bi nga xamante ni nii ku góor gi tamit war nag am ci les lois et règlements de ce pays du pays d'accueil moo tax après lu ci bëri day daal di am ak jaxasoo ak malentendu boo xamante ni nii bon vivre en communauté bi du nekk parce que li wax ànd boo gis nit ñi jàpp te comme loolu du ci am moo tax lu ci bëri di am ay rëq-rëq nag. El Hadj Malick defe naa ni njàngat bi am na solo te wax dëgg yàlla déggee nañ ko xel. waaw dégloo nañ ko xel déggee nañ ko xel soxna déggeen defe naa ni dégg malik waye yawit de def na ni mbir mi ñakul lo ci wara a de aha kon nak duñu def lulul deg lula yawit sa jangat sa gis-gis soxna dégg ngeen kàddu bugata dal mooy njàngat bu gàtt dal sherif japp na ni intégration parce que euh, so ñewé euh, dafa am benen façon bo xamanteni ni mom la la société bobu di won bo xamul won ci Sénégal gi nga daan sëyee après nag soo bëggee jël li nga xamante ne nii lépp lu nga xamante ni nii gaa duñu wax ne Sénégal lépp ngi normal waaye ah jigéen day dafa am foo xamante ni nii foofu la ko yàlla xool foofu la ko yàlla teg mu kawe lool nag par rapport ak li nga xamante ni mooy adduniyaa bi fële moom parfois daf ci am loo xamante ni nii doo ko mun duut baaraam ndax règlement dëkk ba noonu la demee on daal je suis waaw soo amee dara daal nga am këyit nga ñàkk këyit xam da fay bàyyi nit nga daw ñëw lu yàlla wërsëgal nga xam ne daaju àdduna dara xëyu sotti waaw moo wàcc ni foofu kàddu yi daal. d'accord soxna dégg ngeen am na solo. El Hadj euh, si yow laay dellu si El Hadj dafa am lu doy waar lu ñuy faral di dégg fii mooy kii dafa yóbbu soxnaam sa dëkk ba waaye ba mu demee dañ ko détourné yenn saa yi ñu ne ni moom yenn saa yi ñu africain ni moom moo détourné soxnaam ba yàq sëyam bon yenn saa yi ñu dégg ñu nit ku weex waa réew ma ñoo détourné soxnaam ba vraiment soxna si doxalin fa doxalin bu ñaaw boo xam ni. waa ji si boppam dootul mën a muñ loolu soxna si xeeb ko yeb ko te nag bu si justice duggee dafa mel ni justice su réew yooyu ni nu protéger jigéen dafa am solo lool dafa mel ni jigéen ji daal daanaka euh, li ma bëgg a wax mooy dëgg si booram lay mujje mooy mujjee am dëgg El Hadji Malick loolu lan moo ko waral lan moo ko indi am na wala amul ah loolu nag yow laa siy déglu kàddu gàngook kontaan naa kontaan naa El maa ngi lay ma nit bu baax baax baax kontaan naa Chérif euh, wax ci sëyu euh, immigré moom day loo xamante ne yaatu na yaatu goo xamante ne xanaa dañuy commencé rek waaye du mës jeex ndax point de vue dafa dafa différent waaw dafa différent boo xamante ne da ngi seet ci benn point boo xamante ne comme ni El Hadj Malick wax ne d'accord ne ko genre su ma comprendre tuuti mooy ku jigéen ki na nekk fële moom mu dem góorgóorlu lu mu ko yàlla wërsëgalee mu ñëw waaye problème bi ci am rek parent saa yi da ngay dem te xamoo kañ ngay dellusi man foofu lay teg sama baaraam parce que c'est très délicat yàllaay maye yàllaay wërsëgale di nga dem am yaakaar fekk fa loo xamante ne yow naam da nga dem sax woon toog am nu mu demee nga mujjee toog am neneen nu mu demee nga war a mujjee yàlla dogal fa sëy doom yi fa lañu waroon juddoo loolu yàlla tudd na ko pare léegi foofu boo leen fa yéegee compréhension rek ngeen mën dawal ku nekk di comprendre sa morom teg seen aada teg seen gëm-gëm teg li ngeen ci kaw ci seen diine bu fekkee yéen a ko bokk ndax lu tax may wax foofu am na góor ñoo xamante ne dañuy ñëw nekk musulman mais dañuy sëy catholique xam nga li loolu religion musulmane may na leen ko mais am na benn level gëm-gëm boo xam ne boo leen ko amulee eh, doo leen continuer de mën na dox comme mën na bañ a dox comme tamit ci même chose boo leen bokkee religion ngeen bokk religion te doo leen bokk euh, aada mooy genre nu ma ko mën waxee kii doon tukulóor kii doon séeréer kii doon murit kii doon tiijaan am na si ñoo xamante ne bu ñu amulee euh, compréhension bu bu leen sut euh, kilifa gi dina bëgg a wax ne man ni may doxalee ku góor ki ni muy doxalee ci biir këram ku jigéen ki noonu la ko fa war a fekk see moo tax lépp daal di dawal compréhension la ak nangul sa moroom waaw nangu il faut nga nangu muñ ko góor ki muñ ko jigéen ki soo bëggee mu dox mën na dox nag mën na dox waaye dafa laaj ay jéego yu bari bari bari bari bari ndax tamit dina wàññi euh, suñu mbokk moodu moodu yi fay bàyyi seen soxna yi ñu mel ne samay moroom ak samay samay xarit ñu toog cinq ans ñëwuñu man foofu d'accord ma benn yoon <laughs> ñu bëri nag ni dama fiir waaye man d'accord ma d'accord ma nga bàyyi sa jabar ay ati ati at gis naa ñoo xamante ne am nañu fukki at bàyyi ñaari jabar waxuma sax benn de waaye ñaar ñett yow jëfandikoo la jëfandikoo la woon yaa ngi liggéey ba sonn di yónnee fukki at gisoo leen mais bàyyi leen libéré leen bu ñu amee feneen dem fa ah bu yàlla tuddee leen mu leneen il faut nga gëm nga gëm xam ne nag munu nekk daal il faut am nga jabar nga nga koy di ko dundal naam waaye il faut nga koy dëkkal di ko dëkkoo tamit mais ay at c'est trop dur fof dal daal moo doon sama xel bu gàtt loolu laa xalaat ci ci mbir mi ñu dawal ba ci kanam su ko defee l'enfant ne après ñu am benn apport boo xamante ni nga moom la yaay ji di am par rapport ak la grossesse par rapport ak naissance bi nangam nangam ña ngay jàng ngay alphabétisé yaa ngi rencontré toute toute femme de cette de cette de cette de cette nation nangam nangam nangam environnement ba day daal di par rapport ak environnement bi nga xamante yow tu n'étais pas préparé forcément muskila day am ci biir kër gi y a plus la famille nga xamante amna conseil yo constat suñ ko defee après hey nangam nangama pour corriger tension bi commencé c'est un appartement Et voisinage oui rek sous coow commencé après on fait appel si c'est en France la police si c'est en en Italie ou la carabinieri tu te va bonjour bon les dégâts ah hein? so so soo soo amul taxawaay ndimbalal yalla tuuti yow mu ko góor gi après c'est la descente on ne souhaite pas les enfants commencent à souffrir de cette situation nangam ak nangam bu dem bu explosé nag li ma gëm mooy yàlla daf ñu may chance ñu bokk ci xeetu rasulullah bokk ci diine yi nga xamante moom la yàlla wax ne mooy diine bi kon yeneen ñi def yëpp. li ñuy wax yëpp ni moom la ñuy jox femme c'est pour dévaloriser la femme société yàlla moo ñu wax ni société bu bu baaxee jigéen la kon dafa am seen taxawaay bu nga xamante ni ñi ñi taxaw ni di leen jox ay semblant de droit nangam loolu lañ leen bëgg a xañ kontaan si laaj boobu macha allah waaye tan dëggin gis nga bu ñu bokkul fu ñu jógee am na lu ñu am na lu ñu boole muy ku góor ki muy ku jigéen ki muy man yow moom mu nekk États-Unis muy man mi nekk ñetti mbaar muy Chérif El Walid mi nekk ginnaaw raay dafa am loxo xam ne moonu moonu boole muy diine islam c'est important te wax naa ko sànq ci njëlbeen jigéen mooy magasin wu yàlla kon jigéen dafa war a xam boppam nga soo gisee approche yi ñuy indi yëpp ay autonomisation des femmes économique ba ci li nga xamante ni mooy suprématie bi ñu bëgg jël monde bi def ko mu nekk la suprématie féminine xoola rek approche yi am yëpp stratégie yi ñuy teg yëpp ñu dina lislaam moo ñu organiseel orienté ñu mu wax jigéen doole bi nga xamante ni moom la ko yàlla jox ñu leen di indi nag benn stratégie boo xamante ni semblant de liberté c'est c'est la loi liberticide ci sama ci sama gis-gisu bopp parce que indi diina indi laay islam bi yàlla wax loolu mooy suñu orientation ñun jullit te jàpp naa ni loolu ngëm-ngëm yëpp d'accord nañ ci jikko bu baax su amee rek jigéen ñaa taxaw Serigne mi yaa ngi koy wax léegi par rapport ak pouvoir yi nga xamante ni à loolu lañu jox jigéen je vis à l'étranger J'amène ma femme. on habitait ensemble, elle habitait avec moi, ma mère, mes soeurs, mes enfants, environnement familial des dem pour Je comprendre sax ma jëm amatul legui amatul legui amatul legui léegi sexe masculin le sexe féminin Je ne ndax yaa ngi suivre sama regard te yooyu yëpp nag pour dañuy wax na dañuy valoriser jigéen mais c'est pour dévaloriser la femme mu ñëw à l'étranger santé de la reproduction un enfant né avant de naître sax si grossesse rek après yow yàlla assistance sociale qui t'accompagne durant tout le processus y a pas la belle-mère y a pas les beau-père assistance sociale boo xamante ne nii si réew mu dëkk am ay coutume ak ay mërsam ak ay seeni ak ay loi ak ay règlement yoo xamante ni ça n'a rien voir ak la nga fa bàyyi soo gàttee xel rek da ngay daal di wax ne man nekk moom ci dara hmm? ku ne xam na nu mu tëddee li mooy sa droit li mooy sa nangam la dispose tu peux te de de ta fécondité nangam ak nangam génne la ay dispositif yoo xamante ne nii si sa gàtt xel commencé nañ la alphabétiser di ko la centre ki lay jàngal. yaa ngi commencé jël ay coutume am nga ni nag man li ma yoroon baaxul commencé reconnaître sa ay droit yoo xamante ni nii peut-être da nga doon comporté aussi sa biir ménage da nga naan ah man ndekete man nekk moom ci dara problème yi commencé jolli Chérif Chérif loolu dëgg la loolu moom foofu mooy fii metti yu metti moom ci ah, ci ànd bu couple bu mel noonu comme ni nga waxee rek lislaam may na ko góor may ko jigéen te it bul fàtte am na jigéen yu forcé yi koy def seeni waajur nanguwuñu waaye ñu ko ñu ñu ñu centraliser affaire bi ci góor ba pare ne góor a nga koy def ngir mbëggeel ngir am yaakaar ne lu mu yàgg-yàgg dina indi ku jigéen ki di beneen religion indi ko ci moom religion musulmanam waaye ku góor kooku shérif il faut mu am taxawaayu kilifa il faut mu am taxawaayu oustas il faut mu am il faut mu am taxawaayu imam ndax bu fekkee ne yow jàngoo kenn jàngaloo te laajte woo lu yàq yow ndax waroon nga xam ne lii boo ciy dugg dañ la ci war a teg ci yoon ne la fii nga war a nii nga war a def nii nga war a doxale ci commencement balaa wax de commencement mariage balaa sax doom ji ci sosu ndax am nañ ci am doom am ci lu am doom am nañ ci lu am doom seen jabar euh, convertir ñoo nekk musulman am ñoo xam am nañ ci doom te seen jabar du convertir benn yoon am ci nag fukki doom ak lu topp léegi moom ci góor gi bu fekkee ni jiitalul boppam jiital religion di julli à on time mooy di julli heure comme niñ koy waxee rek doon ibaadu dina metti lool jabaram fekk si ko waxatuma sax ay doomam jabaram mën na ko bañ a fekk si mais ay doom dañ ko war a fekk si mais est-ce que am na kilif def boo xamante ne moo leen di jëri ci leen wax lan lan la bëgg moom ci biir këram ak tamit est-ce que am na dogal ci biir këram est-ce que loxoom jot na ginnaawam question yooyu yëpp ngi noonu tege te paren saay sa loxo yàlla mën na sa loxo du jot sa ginnaaw jabar jooju ëpp la alal mais soo naxantewulee say doom duñ la fekk si ndax benn côté mosuñu laa gis nga julli wala paren saay bu la neexee ngay julli bu la neexee yow ngay julli bu la neexee nga xol géej xale itam ya, ci ya, yar boobu la ñu yaru yar boobu la ñu yaru loolu la xam mais man de gis naa ci cas particulier yu bëri yoo xamante ne macha allah fii sax ma nekk ci Amérique gi jabaru américaine ñoo ya, xamante ni dañoo tuub seen ay eh, doom ànd ak ñoom mooy li ma lay wax tuubee ni balaa iya, suba teel ñooy yee seen jëkkër bëreet julli suba teel seen liggéey seen jabar seeni seeni jëkkër liggéey bu ñu nekk ñu jàppale leen si jabaru sénégalais semet catholique tuub gis naa tamit ñoo xamante ne macha allah seen taxawaay bu kii na ba Sénégal ga la ma am naa ci ay am naa ci am naa ci jabar ñoo xamante ne ñoom ak sama frère yi sëy seeni doom ñëpp macha allah jullit waaye taxawaay bi la ak famille bi encadrement bi environnement bi loolu yëpp da ciy joué da bu baax mën na nekk mën na nekk waaye ay jéego yu bari lay laaj. El Hadj Malick euh, muy lu am solo waaye ma delluwaat rek nag euh, si soxna Dégéen soxna Dégéen da nga nekkoon fu am solo muy ku góor ki nga xam ni bu dee jullit li lislaam may na ko mu takk euh, chrétien bi bon sëy nañu ñoom ñaar soxna Dégéen. yalla def na si ay dom mais xam nga ngeum ngeum problème xol la problème xel la xol bi nak mo sepp doole lol li ngay gem mais koku munul warlu à cent pour que ni domam dina nako fek si dina nek ñom ñep ay julit non ah, man si sama gis-gis après ma deglu sa xalat dama gis ni koku sey boobu l'islam nangu nako waaye nag ku góor ki am na taxawaay boo xam ne bu ko teelul taxawee te nag loolu aussi ndaw si daf siy ànd ak moom boo moytuwul ay doomam ah dinañu féete foo xam ne peut-être xëy na gënalu ko woon même su ko muñee xam ne mënu si dara parce que gëm-gëm la lii laa gëm nag sama xel lii la ma may ah kenn sañu ko bañal kenn donte kon sa doom la boo ko bëggee bañ rek yaa ngi indi problème. soo ne dégg ngeen foofu dama la siy laaj est-ce que wu si yoo xam ni doom yi duñu bokk diine ñii dinañ toppi seen diine yaay ñu topp seen diine papa mais papa ji su boobaa ban gis-gis la si am mom nan day dundee loolu ndax dama yaakaar ni bu sañoon ay domam fekk si ko si diineem mais bu demee ba mënatu si dara loolu naka lay demee est-ce que loolu aussi donte kon lislaam maye na ko ah, amul si yenn réew yoo xam war nañu xool naka lañ ko fay defee walla soxna Degene yow laa siy déglu sa xalaat ban gis-gis nga si am kàddu gaa ngoog foofu am na solo soxna Degene léegi nag euh, ma delluwaat rek si El Hadji Malick El Hadji Malick yow day am na fu nu tegoon baram waa El Hadji Malick Sarr nga defe nii ki jëlee soxnaam senegal war ko yóbbu mu fekk si ko dund ak moom bitim réew est-ce laajul mu am nu mu ko préparé nu mu ko waajalee. mais laajul aussi ndax famille ku jigéen ki aussi am waxtaan bu nu yabee nanu ko yabe woon daanaka ba muy sëy fii laajul mu amaat beneen wàccaay bu bes benen yabin wu bes ba nga xam ni réew ma muy jëm bu demee dina xam lu mu fay fekk lépp dugu xam ne war na ko sëy mën a lor dugg digganteem ak jëkkëram dugg di nu ko ba nga bu du ko du ko loolu it gisoo ko élage walla ndax nag bu demee ba ni muy deme ni nu koy gis muy yokk jarul ku nekk bàyyi sa soxna si réew mi te dem wuti ñëw indil ko élage Malick nag sa xalaat laa lay laaj foofu bàyyi laa kàddu gi si sa préoccupation conjugale yi la lié maanaam day diminuer parce que l'intégration c'est la connaissance de la langue règlement et loi yi li ci topp am nga possibilité dem liggéey ji aha commencé nga percevoir un salaire rek comme on di toujours l'homme légal égal égal la femme su su su su iman nekkul ci yow tuuti rek après deux jours les dégâts day daal di commencé te am na loo xamante ne nii doole bu mun ci am su ko seexee ak jigéen si dëkk boobu télé bi c'est-à-dire mën sa bopp bi soit di ngeen di jàmmoo rek parce que lu ci ëpp de la provocation tu es de riposter après voilà ko day daal di am noo xamante ni noonu lay diggee si diggante kiy denc ak ki ñuy denc mu mel ni dara amatu fa comme ay dox ay dëkkandoo ah! day daal di poser problème forcément day poser problème su su su ni nga ko waxee ku ñu ku am ku am ku am ku am yar orientation bu baax dëgg dëgg dëgg te mu xam ni contrat sociale bi ko lii ak son moom rek mooy wér leneen lu ci topp doo ci topp chance la nag am na ko nag macha allah ay grande dame yoo xamante ne nii quel que soit alpha la situation dañuy xam ni nag priorité bi mooy monsieur bi macha allah yal na yàlla yàggal seen taxawaay way dal taxawaay bi daal moom jigéen ñi la de lépp mi ngi dépendre si jigéen ñi. gaa yi nag dañuy perdre seen bopp. waaw su ko defee situation sociale bi commencé changé am na góor ñoo xamante ni ni analyser day day négatif ba nga xamanteni ni après xam nga day dal indi conflit jigéen gi tamit day génn day dem liggéey ji day am ay relation nangam nangam loo xamanteni ni musul woon traversé dans sa tête voilà léegi nag day daal indi macha allah des problèmes sa diggante ki nga xamanteni ni moom mooy moom mooy mu mooy moom mooy ki yàlla booleel te ànd boo gis yàlla moo koy dogal ànd boo mënti gis kon rafetal rafetal dalal ci góor jigéen moo koy dalal dalal xel ni rek ànd bi rafet te màggatandoo moo tax toujours demain un exemple si si relation soxna may mun a ñaa xaw si si si si kanam nii mais miin cadeau kàddoom yu rafet ak doxalinam ba mu partager le téléphone avec son mari quel bon exemple inshallah allah wa waaw man mangi ñëwaat préparation boobu day day poser problème day poser problème ndax ñaar li nga wax sànq rek ci mbokkam koy préparé mu sëy boo demee nangam boo demee déggalal sa jëkkër boo demee nangam boo demee déggalal sa gorom muñal muñal muñal mu muñal déggalal sa jëkkër déggalal sa goro del waxtaan la sa jëkkër lum la am na doy la c'est ça euh, nos coutumes mais il suffit que sa jëkkër am intention jël la yóbbu la feneen yow da ngay nekkaat beneen jigéen du nekkatoo jigéen bi ñuy jëloon kër papam sëy mais dangay jël da nga jógee sa kër da nga jógee sa kër danga jóge si kër jëkkër dem nekk ji faatu faatu xaw ma ndax dégg kër dem nekk ji faatu faatu jërëjëf euh, El Hadji euh, am na solo waa soxna Degen ah te noo dellu fa nu nekkoon rek xoolati ba xam yow tey jii xeetu mariage yooyu nga xam ne papa ji day nekk musulman yaay ji nekk chrétien est-ce que bariwu si ay sëy yoo xam ne bu si ay doom soso rek sëy ndax ku si nek da ngay bëgg xëcc am yarin bo def sa doom ta keneen ko du ko nangu est-ce que yu mel nonu du ngeen ko faral di dund ah soxna dégg nag loolu yow laa siy déglu. macha allah Chérif loolu moom loolay problème bi nekk loolu rek mooy problème bi mais bu ñu demee nag ba d'accord souvent ba nangu sëy souvent waxante nañ ko waxante nañ ko mais am na ñu bari nag dañuy dëkkee. espoir daal mais bu yàggee ci biir après dina changer te boo defulee nànk rek du changer day am problème wañ ko teelee waxtaane daal dañ ci am ndam payen saa yi nag yàlla def si ndox mu sedd bis si ndox mu sedd waaw mu continuer mais sinon am na yu dox am na yu dul dox it's a problème bu mag la ziar ñëpp nag balu ak ñëpp ñu wax ne suñu kàddu yi buñ koy yëkkati du càgganu dañoo xam xamuñu dara dañuy labat rek benn jaam boo xamante ne nii bu doyadi waaye nag bëgg rek suñu nekkin ak suñu taxawaay par rapport ak suñu réew suñu dëkk suñu gox suñu kër ñoom lu ci jub nag yàlla la lu ci dëng ngeen xam ni yi hmm. jaam bu gën a suufi ci jaam yi rek moo bëgg doon waxataan ay bokki jaamam waaye xam nga liggéey boo gis secret la moo tax daf ci am yoo xamante ni peut-être sax damay xaw a nuancé waaye daal li ma xam mooy képp ku tukki ku nekk rek ñibbee nekk sa xel te ki nga xamante ni nii tamit day jëlee soxnaam si réew mi yóbbu ko foofu dafa benn yaakaar bu muy am par rapport ak dundi dundinam ci lu ko gën a ñoŋal ba ñu am loraange si diggante mag ki nga xamante ni mooy soxnaam parce que comme ni ko di euh, waxee tan di ngeen waxee si njëlbeen bi cinquante ans dix ans te eh, ñu mel ni ñenn ñi day daal di doy war si seen nekkin par rapport ak l'étranger pour ñu toog rek ni ñum dan xëy na bañ loraange boobu te bañ tooñ yàlla googu mooy waral ñu am yaakaar ne bu ñu indee seen soxna si foofu noonu dina am benn dina am benn jàppandal waaye nag ñi nga xamante ni nii dañuy jàpp ne sëy moo leen fay indi ba jont yàlla ñu ngi taxaw ci loolu malgré seen intégration macha allah am am nag ñu ngi dépendre ci borom bi tabaraka wa taala bi ci gën a am solo nag trésor bi gën a rëy mooy doylu waaw fa la ñëpp mënantee te loolu dañ koy suuxat keroog maa ngi déglu benn émission bu am solo par rapport ak diaspora tata déggan mi di si wax que xale da ko yërëm soo buggee ëllëg parce que orientation bi yëpp foofu la muy lu am solo boo gisee ñu ñuy gërëm suñu waajur yi ak ñi leen jiitu dañu amoon rigueur par rapport ak seen éducation doom moo tax on ne les remerciera jamais assez fu nu toll ñu ngi leen ñu ngi leen di gërëm ñu fi ñu fi ki fi dess di yaay ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan fi lool ànd ak wér ki nga xamante mooy papa tamit te dem barzak bés bu ne saa su ne heure bu suñu xel nekkee si moom rek ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram fu mu tëdd kon base bi daf ci am solo trop ci li nga xamante ni mooy njaboot gi te aduna aduna yëngatu na yëngatu bu nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy les décideurs entre guillemets parce que am ci lo xamanteni ni nii ñun jullit tracel na yalla tracel nañu ba paré muy li nga xamanteni ni sunu sunu téré alcorane mais ñen ñi nga xamanteni ni ñom ñoom ñoy décideur yi entre guillemets ñom seen lepp moy li nga xamanteni ni li yalla gëna fonk muy doom adama lu ko détruire rek ci lañuy xalaat ci lañuy gëssu ci lañuy ñuy seen laboratoire pour ay cent ans waaye duñu am ndam mukk motax nak ku nek ci ñun am taxaway fo muntine ci lo muntine ci comme kaf Sénégal naataange di waxee chaque fois muy les valeurs les valeurs cardinales yi nga xamanteni ni moy moy moy sokul doom adam mbokk yi di leen Cap Sénégal Natangé, la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangé, bi président Abdoulaye Fall di un parti en construction di yëngatu tousi lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy kanam way luy jëmale sunu réew Sénégal sa kanam luy sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangé, di yëngatu tousi càmm mbay mi santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng jàngale waaye it di yëngatu si justice jub jubal jubbanti lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine de émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission xew xewu diaspora kon nag euh, du ma def rek euh, lu dul dellu si jàkkaarloog euh, El Malick Sarr El Hadji Malick bu nu jàngatee liñ fi waxtaanee yëpp. dañuy gis ni li ñu foog ak li am bokkul ñu bari dañu yaakaar ni boo génnee dem bitim réew rek sa lépp sotti na maanaam yaa ngi dund àjjana si kaw suuf di nga am xaalis di nga am alal di nga am daraja di nga am leneen ak leneen ak leneen te mu mel ni wax dëgg yàlla tukki si réewu jàmbur yombul metti na te wax dëgg yàlla neexul la fa nit di wuti de ku ko amoon sa réew yaakaar naa doo ko fi bàyyi di génn El Malik Sarr foofu rek la bëgg nga defal ma fi njàngat ma dégg ci xalaat bi gis-gis bi dina am solo lool kàddu gàngoog jërëjëf El Malik Malik Sarr rafet na am na solo neex naa dégg te dëggu na te jànge nañ ci lu bari nu lay wax rek euh, yow it fan la doon xaar egg si fa lan doon xaar si yow gis nañ ko jërëjëf Sarr xanaa nag euh, ma dellu rek si soxna Dégéen soxna Dégéen nag euh, si solution yi tey yow soxna Dégéen buñ la laajoon ni la jàkkaar lool nga am loo wax couple yooyu nga xam ne ñi ngi sëy te duñu bokk diine duñu bokk waaso duñu bokk xeet waaye xëy na mbëggeel xëy na leneen ak leneen ak leneen mooy lal seenu sëy lal seen diggante tey yow boo doon waxtaan ak ñoom am loo leen di wax

tu la conscience tranquille sa ji ñi ngay jëfandanteel àdduna si sa liggéey sa conscience tranquille gëm naa ni ñu ñi nga xamante ni ñun jullit ñi nga xamante ni ñooy sénégalais en particulier yàlla dinañ defal ndam te ndam loolu rek lañ bëggal suñu réew bëggal ko àdduna yëpp ñi nga xamante ni mooy jullit te dara teewul yàlla nag nañ ko ñaan rek ak am taxawaay bi ñi nga xamante ni ñoo nekk si àll bi yàlla jàppandal leen lépp ñi fi ne di leen xaar tam yàlla may leen xol buñ ko muñee jokk xéewal ak teraanga yi te xam ni picc nga ca kaw moom waaye xel maa ngi ca suuf waaw nga ca kaw waaye xel maa ngi ca suuf lu am solo la waaw te te xam ne salaahu salaam muy perle bi muy muy leer gi muy lépp. buñ yàlla ci yàlla sukkandikuloo te moom la ñu yàlla joxoñal joxoñ waaw jéemee rek yàlla dinañ dimbali yàlla ko yàlla defal defal ko mboolem jur ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci fekk kàddu yi nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu àq ñëpp yàlla yàlla boole jégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa El Hadj vérité absolue laay wax li nga wax ni macha allah macha allah vérité absolue Chérif. na mu tourné ci yow rek di conclure ne façon couple yoy mom bu amé té yalla tudd ci mbeugël sen digënté ngeen am ciofel lepp rek da ngeen koy tok waxtaane ko ba am ci terrain de terrain d'entente waaw ngeen soog a jublu ci benen étape te bañ a brûler benn étape étape boo ci brûlé rek ëllëg dafay dellu si waat ci yow waaw ndax ku jigéen ki moom bu la bëggee dëggantaan même bu nanguwulee bàyyi diineem te ñëw fekk sa la yow mi góor am na nooy waxtaaneek moom xale yi bu gisee yow sa doxalin sa jullite ci yow ak ni ngay ni ngay ni ngay dëkkook sa religion moom du ci am problème ndax xam na sa mbaanu xam na sa maanu xam na li nga doon xam na li nga gëm waaw su boobaa fekk sa la day yomb te ay doomam du am du am séparation ñii di doon catholique ñii doon kii mais bu amee doxalin boo wane ci yoon bi rek mooy wane ëllëg xale yi façon fi nga bëgg ñu diriger wa seen religion du yegg waaw da ngay mujj di xuloog ñoom di leen abandonné di leen di leen ñu ñu naan leen déshérité nañ leen yooyu am na fi waaw yëpp daal ci doxalin boobu la daal doxalin boobu la teg ko ci yoon teg ko ci yoon macha allah teg ko macha allah ci yoon boo ko defee rek am ci am ci am ci solution bi nga bëgg entente rek daal entente rek moo leen ciy génne entente moo leen ciy génne allah kontaan nañ. kontaan nañ bu baax ci dalal bi mbokk yi cap sénégal natangué la convergence alternative pour la prospérité sénégal natangué lëkkaloo woon ak sunu kër FM